di nuyuwaat Kaolack di nuyu waa Kaolack di leen jéggalu di wax nañ toogoon nañ fii ñun commité de ciblage wax ak ñoom pour leeral leen ci liggéey bi nga xam ne bii yàlla moo def <coughs> ñu dénk ñu ko ba gouverneur ak préfet jëlee seen arrêté ba pare madame le maire de Kaolack dafa jël arrêté moom itamit créé comité de ciblage fii ci Kaolack ne ñii lii laa bëgg doxale ko bàyyiwuñ kenn nag koo xam ne kii yaa ngi ci dëkk bi parce que ñun ay ñu ñu fan lañ waa kaw Kaolack am na ñoo xam ne ñi délégué de quartier lañ am na ñoo xam ne imaam lañ waa jàngu bi société civile ñu bëri tënku nañ ci commune communale bañ demee ci gox goxaat yi tamit di quartier yi nañ ko waxee ci lettre bañ jox jotoon noonu lañ ko tëral ci quartier bu nekk délégué bi mooy président bi waaye kan la àndal directeur d'école mu nga ca biir imaamu gox ba mu nga ca biir ki représenté jàngu bi mu ngi ci biir CCQ yi nga xam ne xale yi ñoo développement local ñu nga ca biir bàjjanu gox yi ñu nga ca biir association parents d'élèves ñu nga ca biir képp ku yëngatu ci wàllu kii yaa nga ca biir ñoom si seen bopp sax ñoo jël ñoo xam na ñi xëy na dañ xam ne bu ñu ànd ñoom liggéey bi day gën a ki ñu yokk leen ci loolu kooku kooku kooku bugg na lu leer. kon ku tànn délégué naan délégué bi deful li ko war da nga xamul ni mu demee boo xamul ni nga demee nag dangay laaj te fii bu ñu fa ñëwoon laajte dañ leen koy leeral bam kii amul amul amul lu ñuy nëbb amul lu ñuy nëbb ci lii parce que bañ daan tànn nit ñi di leen dimbale oowuñu leen woon da ngay jékki-jékki rek ñu oo la mairie ne la kay ñëw dimbal kon tànn boobu moo gën a moo moo moo gënoon neex sax parce que ki nga tànn boo ko tànn du ñëw rek dafa réclamer waaye tey ñu dem ba ca gox ba teg fa comité boo xam ne ci gox ba la dëkk ñoom ñëpp fa lañ dëkk ñu tànn tànn ba nag foog nga tànn kii bàyyi looloo xew ñi jóg nag di wax naan délégué def na mu ni wala naa xëy na ñaar rek a mën a am ñàkk mata di wala ñàkk gëm yàlla parce que ku gëm yàlla bu ñu la tànn itam mën nga xaar bés bu rafet parce que commune Kaolack dafa liggéey ci loolu lu yàgg boobu ñëw mënuñ wax mbas rek ñu génne cinquante millions pour dimbale nit ñi te boobu état ñëwagul ba tey te lii état indi tamit bu weesoo commune Kaolack day taxaw dimbalewaat ay population li may wax lu ma leer la te lu leen leer la yéen journaliste yi te ndimbal boobu xëy na ku ci jotuloon ci ñi nga xam ne tànn lañ man lañ bu ñuy tànnaat dañuy tànn ñeneen waaye duñ tànnaat ñi duñ jël les mêmes cibles ñooñu dootuñ bokk ci ndimbal mi parce que dañuy continuer mais loolu ku dal ku dallu dalul sax dootoo dootoo dootoo am lu loolu moo xew délégué buñ ci tuumaat fii rek maanaam dafa séq kooko loo xam ne lii bu ko nettali woon dañ naan est-ce que kii mën na def lii délégué bi est-ce que kii war na mën a def lii délégué parce que dañuy jëriñ askan wi si seen biir kuréel fu ñu leen au police gendarmerie walla feneen ñoom ñooy gunge nit ki déclaration yi ñu def ci mairie bi ñoom ñooy ñëw indi seen kay dimbali nit ñi waaye ki lay liggéeyul mënoo ko muñal benn sàkku ceeb boo xam ne tànnuñ la mais mën nañ la tànnaa ëllëg gëmadi yàlla nag dafay indi jikko nit nga xam ko ci ci ci ci bés bi loolu moo xew ko la. dañu bokk ci quartier yi nga dañ leen amoon

ku ne xam ne que vulnérable mooy koo xam ne pour bañ a wax moo wundool sa loxo jotul sa ginnaaw ñu ne et eh, ou affecté parce que situation ndimbal bi président joxe da ko joxe parce que situation pandémique bi bi Covid 19 bi am situation bi ñu dund moo donc et eh, ou affecté boobu nag nga gis commerçant boo xam ne da doon jaay feebaru mbas mi tax na njaayam doxatut ba amatul lu mu dumbalee njabootam. day gis transporteur boo xam ne da doon daw interrégion ñu ne dañ ko arrêté mënatul dem dawi ji.

wala kër goo xam fonctionnaires. am na fonctionnaire nañ ko au départ bi ñu pour le cas de Toubacouta extension ils ont même élargi à d'autres personnes ressources yoo xam beaucoup de sax duñu bàjjenu gox doonuñu imam doonuñu association de jeunes yi ñu ciblé bokkuñ doonuñu OCB mais ils ont voulu pour beaucoup plus de transparence élargir cette commission sur la base de cela lañ leen travaillé buñu travailler ba paré buñu défé sen seen pré-identification ba paré ñu owaat ñu pour ñu ñëw assemblée générale de validation devant encore le comité biñu démé ba benn moment ñun on a reporté ça à deux fois de suite parce que xalé dañ ko dañ dañ commencé wax wax né benn famille bi mo gën vulnérable bi ils ont changé ñu gënné ménage bobu duggal beneen ménage ñu ne leen duñu valider lool ñu toogaat ñu owaat ñu validation ñu ñëw bu ñu on a dit devant tous les membres du comité yéen a d'accord li ñu ne waaw ñu ne liir leen ñu liir benn par benn ménage par ménage ménage par ménage ba quota bi ñu leen alloué woon jeex ñu ne yéen d'accord ci li ñu ne waaw ñu ne est-ce que seen liste bi am na fonctionnaire buy liggéey ñu ne déedéet ñu ne est-ce que am na fonctionnaire bu nekk en service ñu ne déedéet ñu ne ok sur la base cela la ñu validé léegi nag damaa yaakaar ne délégué yi parce que délégué yi ñoom tànn ñu de comité moo tànn parce que dañoo pàcc pàcc pàcc ay zone dem leen ci seen gox yi ngeen dëkk seen ci seen gox yéen ngeen tànn nangami nit ñu tànn comme comité boobu moo tànn ñu ñëwaat tegaat ko ci comité bu mag bi ñoom ñëpp ñu validé noo ensemble dama yaakaar ne su amee yenn problème yi ñëleen ko santoon ñoom dañu war a dellu si ñoom ñu xool ñu xool lii nii lan mooy jafe-jafe bi mais man sérieusement j'ai surprise ma déggee ci rajo bi ñuy wax ne am na ay quartier yi nga xam ne tànnin bi awul yoon wala aw na yoon wala nangam nangam